seen émission chez Jeux ci biir KS TV Sénégal daal amaat gan bu bees nekk ki nga xamante ne moom mooy Pape Faye <laughs> ah waa <laughs> <laughs> dëgër musóor nekk artiste comédien nekk acteur waaye itam nekkit metteur en scène muy jàngale li nga xamante ni moom mooy wàllum art dramatique ak li nga xamante ni tam mooy technique de communication mu nekk directeur bu troupe Zénithar bu Ndakaaru nekkit ki nga xamante ni jamono ji moo jiite Arco National Pap Faye mu ngi fekk baax fële ca diwaanu Guéréo lébu ak séeréer daal di koy seet am njàngam nag mu ngi ko defee diggante Guéréo Popenguine mbuur jàpp Ndakaaru mu am nag ay lijaasa yu bëri teg ci it ñu tàggat ko ci wàllum théâtre lijaasa yi nag ñu mën cee tudd benn boo xamante ne nag ràññee nañ ko lool fii ci daanu Sénégal mu nekk nag boo xamante ne mu ngi ko jëlee fële ca Conservatoire national du Sénégal mu nekkoon atum 1976 jàpp atum 1978 yenn ci film ak documentaire yoo xamante ne nag ràññee nañ ci lool acteur bi nga xamante ne moom mooy Pape Faye bokk na ci Ramakati le gilet de sauvetage la salubrité des plages yeneen i film documentaire ak théâtre yoo xamante ne nag acteur bi di parfait daan na koy def fii ci diwaanu Sénégal ak bitim réew mu faral nag di liggéey ak ay ONG yu mel ni USAID yi loolee nag di yenn ci ay jaar-jaar comédien bi nga xamante ne moom mooy Pape Faye Pape Faye ah, tey jii moo fas yéene nekk ganuk chez Ndanane ah, fas yéene janoo ki nga xamante ne moom mooy dëgër musoor kon boog defaraat leen toogaay yi bu baax a baax ah, fas yéene nag janoo ak Pape Faye ak dëgër musoor ci biir KSTV Sénégal asalaamaaleykum mbokk internetu KSTV Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen di ziar leen seen émission saison ndaanaan dooraat na ñu dalalati ndaanaan nag ni ma leen koy tàmm waxee miin ngeen ko ci samay kàddu nee naa leen saison bi ku dul ndaanaan doo ci toog ku dul sama xarit tamit doo ci toog te bés bu nekk rek ma war leen firnde nee naa leen ku dul sama xarit ma duma la invité boo ma wooyee sa dama naan la invité wu ma na doo sama xarit man sama xarit ak ndaanaan piir na koo xam ne ñëpp dinañ coow ndaanaanam te leer na leen ne ku ma fi teg rek yéen ci seen bopp yéen a may woo ne ma ndaan invité ti nga ndaanaan ba tax na tey ma invité ndaanaan ndaanaan ndaanaan ndaanaan ci biir ndaanaan yi xanaa du maa leen rangel ndaanaan gi noonu te bu waxee rek ba nuyoo di ngeen xam ne ndaanaan pire laa invité macha allah ci doxalinam ci waxinam ci la muy jëf ca la liggéey kon kii mooy ndaanaan euh, président Pape fay waaw kay moom laa invité jeex na wax ci jarul dolli dara dama koy bàyyi mu nuyoo président maa ngi lay man rek <laughs> man rek ci ndaanaan ah le ndaanaan des ndaanaan est là super ndaanaan du théâtre <laughs> xanaa xool sedd na nag. Ah, xool sedd na kontaan naa macha allah ah, dëgër musóor mais man dëgër musóor moom may fa jël tur woowule. président nag laaj bi. Ah. oustaz Matar Sarr. bu DTV. waaw laaj na ko. ma ne ko bu ñuy jeexal dinaa la toon keneen na keneen ndax naa ni daal ñu ngi laaj lool mais dama leen ne. nañ ma bàyyil sama ndaanaan kooku rek dëgër mu sóor gi ba ci kanam ma wax leen lan la. incha allah ma daal di lay bàyyi nag président du la ne. kan mooy Pape Faye noonu duma ko wax ndax su ma toogee fi ne la kan mooy Pape Faye wàccee danañ ma dóor ndax macha allah àdduna bi yëpp xam nan la man àdduna bi laay wax euh, dama naan la lan mooy jaar-jaaru président. waaw jaar-jaaru président coolu théâtre gi ngay wax. non tant que président rek laataa muy théâtre moom président ci boppam jaar-jaaram fan la dooree ba li ko dugal ci théâtre. ok ok waaw yaatu na nag yaatu na macha allah parce que man maa ngi fekk baax euh, dëkk bu ñuy wax Guéréo nekk ci côte bi digganteem euh, ak Popenguine ndayaan jëm Jëmbuur ci côte bi booy xool euh, yaatuwul foofu laa fekk baax. donc booy xool ñun ay ay lébu la ñu lii yi di wax naan ay lébu la ñu <laughs> waaye lébu gi nag dafa fekk nag séréer gi moo ko jiitu parce que sunu maam yëpp ay séréer la ñu looloo tax ma sant fay mhm. sama papa dafa daan lekk lekk séréer man xawoon naa dégg tuuti séréer waaye nag avec le temps Ndakaaru da yàq mhm. da yàq da yàq da yàq culture <laughs> alors donc jóge euh, jànge Popenguine jaari Géro jàng foofu jóge Géro dem Mbuur dafa sama étude secondaire joge foofu nag doog ko ñëw dakaar nag continuer sama étude supérieure voilà loolu daal mooy jaar-jaaru Pape Faye euh, ci gàttal daal parce que bu ñu naree xuus ci biir loolu day yàgg mais nag li ma ci mën a wax ci loolu itam teg ko ci mooy gannaaw bi nga xamante ne def naa ñëw naa Dakar de sama étude supérieure dama opté pour def le théâtre dem formation académique au conservatoire national des arts waaw foofu laa jàngee en génn nag ak samay lijaasa euh, bokkoon ci sama promotion parmi les deux premiers ci promotion bi boobu sunu promotion dafa amoon ay ay ethnie yu bari amoon na ay amoon na ay capverdien ak yooyu yëpp quoi. voilà yàlla dogal nag euh, avant sax ma génne avant ma génne euh, foofu sax déjà que samay professeur ay tubaab la ñu woon ñoom ñëpp ay tubaab la ñu woon di woon ay c'était des gens agrégés d'art dramatique euh, jàng daal ba naan téere yi dugal ma université CLAD di Euh, centre linguistique d'appliqué centre linguistique euh, euh, appliqué l'université de Dakar dégg nga ñu affecté ma ci beneen branche radiophonique di jàngale di jàngale par la rajo par la rajo xam nga jàngale ci biir classe yi man na dama doon jàngale par la rajo looy loolu mooy woon émission wu classe à l'époque ah, te ma pare foofu Euh, ci la ma institut français bi nga xamante moo nekk tey fii dal di ma jël booba centre culturel français la woon ñu jël ma yóbbu ma euh, centre ba may di former ay groupe de jeunes ak i étudiants ak yenn professeurs yi ci wàllu euh, art dramatique den di bu baax a baax a baax a baax a baax loolu nag moom ubbil buntu ba mu a dem fu mel ni Belgique euh, dem France def fa ay ay yokku ji xam waaw bi ma dellisee ma war a dem Sorano euh, RTS ne la soxla boobu ORTS la ñu wax office de radio diffusion télévision du Sénégal ñu dañ ma soxla comme dama nekkoon doon jàngale ci rajo par la rajo ñoo ne kii wax naa mun a liggéey ci rajo bi loolu moo après nag jamono Marcel Ndione la woon qui était directeur général de la ORTS Sorano Maurice Sonar Senghor à l'époque nekkoon fa directeur yoon Serigne Ndiaye Gonzalez ne Pape Faye sax nañ ko fii Sorano ma dem def audition ñu ne ma baax na dañ dañ la jël nga nekk Sorano comme comédien ak sama benn xarit bu ñu wax Ndeye Meysa Diop mi ngi Paris léegi am na fa presque quarante ans ma bugg dugg teg sama tànk Sorano rek ñu woowaat ma feneen école beneen école moom woo école bi nga xamante ne mooy école cour Sainte Marie de Hann di c'est une école privée catholique amoon plus de cinquante nationalités cest foofu euh, xale yi faral jàng yëpp ay doomu kilifa lañ seen pap bi nekk ministre wala député wala directeur de société wala président de la république wala yeneen ak yeneen ak yeneen quand di dis ça wala euh, sëriñ su mag a mag si ñu bëri dañ defee ni sëriñ seen doom du jàng ci école labbe yi déedéet si si du mu tudd seen tur mais ay sëriñ ñu xam i kilifa ci réew mi ay sëriñ ay xalif seen doom dañ leen inscrire ci ko Sainte Marie de Anne nekk ñu nekk fa nekk à l'internat avantage la daañu xam islam yàlla may na déjà jàng nañu alxuraan mais dañu xamale itam ci wàllu christianisme bi parce que am na fu ñu bokk ci Marie a ci Jésus Christa donc ñoom dañuy yokk xam-xam ci yooyu xam donc euh, yaayu ñooyu nag bokkoon na ci ñi nga xamante ne dañ la naan tàggat man daan leen tàggat <laughs> ci lu bari. ma bokkoon nag ci nga xam ci ci ci kuréel boo xam ne dañ ñu bëri defoon dañ defoon na sa man j'étais un chrétien tellement que dama dugg seen biir xuus seen biir nekk seen biir mu amoon benn dialogue islamo-chrétien bu am solo bu ñaan daan dawal jamono yooyu si bien que lépp du ñu daan def ci wàllu spectacle jëm ci affaire Jésus Christa wala ci Marie la Vierge Marie man mii lañ koy confier ba bii Pape Jean Paul II di ñëw fii ci Sénégal. man lañ joxoon tout ce qui était spectacle ma réaliser ko au stade Demba Diop dégg nga ma maa doon voix bi yëpp sama yëpp sama man la woon ak yeneen ak yeneen euh, journée mondiale de la jeunesse yu bare daal yu bare macha allah donc euh, école boobu nag li Maris Fada yàgg nag def naa fa presque vingt trois ans vingt trois ans teewul nag ma doon liggéey am sama compagnie di dem Sorano di def ay film def ay. tournage di def lu bare bare bare bay loolu euh, dama koy sante sunu borom bi parce que euh, loolu ni ma ni ma xuusa ci biir dialogue islamo-chrétien bi daf ma defar yàlla dagal ci loolu euh, liggéey naa fa liggéey boo xamante ne bii bi école bi waree compétir joŋante ci wàllu jàmmoo ci xeet jàmmoo ci xeet c'est-à-dire euh, prix international d'éducation à la paix et à la compréhension internationale muy prix boo xamante ni bii dañ ko doon xëccoo yàlla dogal ñu ni ñun école bii di mariste nañu postuler yàlla dogal ñu postuler ñu postuler moom nan la euh, meloon dafa ci ay éléments dafa bëri woon affaire àddina bi que ne ñun mérite méritoon nañu prix le yooyu yëpp sama service la jóge woon ci bari bokk genn wàll ci liggéey bi nga xam ne jot nañ ko faa liggéey euh, ci fànn yëpp ci wàllu animation culturelle euh, promotion de la paix du dialogue social ñu dem yàlla dogal ñu gàddu ndam lay UNESCO waaw indi ko fi Sénégal Abdou Diouf recevoir ñu ba ñuy dem euh, ci nekkoon ci bopp bi à ak à part directeur bi ak yenn kilifa yi maa woon ci bopp jiite délégation bi parce que sama li ñu liggéey sama service moo ñu may ndam loolu le donc lu askanu jar xam la moo tax bi ma toogee ba jamono jëmi jamono daaw xam mbiru yàlla rek. am benn kuréel bu ne fii représenté Nations Unies ah ñu koy GPPI kuréel boobu euh, distingue ma jox ma prix ambassadeur pour la paix mi ngi fii naa la ko woon daaw lañ ma ko jox ci loo yëgul tino mais kooku loxo yàlla c'est la main de Dieu c'est la main de Dieu mais it yëngatu ci jàmmoo rek ba tax na lépp lu ñuy def ci réew mi wala ñu koy def au niveau international am na lu ma ci xalaat lu ma ci bind teg ci sama voix bi ma sunu borom bi dénk pour nit ñi dégg ko mu war a war àdduna bi yëpp journée mondiale de la paix dama ciy def ay vidéo di envoyé journée mondiale de la femme dama ciy def ay vidéo chaque fois di envoyé ba bi mujj nii di ci kañ jigéen nag taaru jigéen générosité jigéen ma jigéen ay waay jigéen maa la bëgg ba yàqu. loolu dama koo soxla ci. fee ba loolu danaa la ko laaj loolu bëgg naa ko loolu moom du ma dem ba du ma ñëw fii ba dem da awma ko loolu dama da nga ma koy dencal soo gisee nag bëgguma la woon dagg. li mu doon expliqué dafa am solo macha allah ndax ndaanaan bu nekk rek am na jaar-jaar te moom leer na leen ne jaar-jaaram dafa riis macha allah wax dëgg yàlla comme dañ ko doon bàyyi rek mu génnee ko waaye nag bi nga bi nga nekkee ndaw. ñu dellu ginnaaw wax nga ñëw fii ngay jaar tey li nga am noonu yëpp théâtre moo la ko may waaye bi nga nekkee ndaw ndax yow da nga nekk ndaw rek sa rêve nekk rek man théâtre rek laa bëgg a def wala def nga beneen métier bu dul théâtre non non non man musuma def lu dul théâtre dans ma vie j'ai j'ai pas fait à part la radio à part radio parce que euh, j'ai fait la radio bi ma nekkee encore en formation au conservatoire yàlla dox na gën a àdduna bi mu jëkkee am première année deuxième année Lamine yi Pape Faye ma ne ko waaw mu ne ma dama lay déglu ngay wax dama laa soxla sama émission radiophonique en français di def ay poésie ma ne ko dana ma neex ci la dugg rajo di def émission ak moom donc yàgg naa donc rajo dama ko yàggo def ma def def naa rajo FM ah def naa RTS def naa Walfadjri def naa Sud FM def naa euh, rajo rajo France international def naa Belgique j'ai fait j'ai encore des des des sons en radio belge j'ai encore des sons ay CD yu xam def naa ko yu bari ko yu bon ainsi de suite alors euh, kooku euh, laa xam ni à part le théâtre def naa ko mais sinon bu su ma def woon théâtre def moon rajo boxeur lay doon